يهديك يهديك بمعنى ايه؟ فهمنا dan waktu itu nyari mulai itu lima ya bari bari bari وقت يمكن أن أغلطي لقد كنت في في غاية من الأذى وكسرت عن خداك منك أنت بالشجرات غلطي بري بري بري نقدني ñi nga toogee di di jàkkaarloo ak seen moromu ñaar ci àdduna ngay diggante ñoom ngay diggante ñoom danañ dem ba jamono boo xam ne yàgg fi waaye seen seen relation day jeex. Mm-hmm. mën naa naka lañ dégg waaye ñoom ñu dund dégg ci su yaa ngi am relation yi ñeneen. Mm-hmm. su boobaa dafay ci jigéen xam ne dara desul. mooy tàggoog àdduna ak li nga ak li nga xam ak li nga xam ñëpp ñu tëdd ci bërëb boo xam ne dootoo ko jóge ci mukk keroog ngay gis na lépp lu la digoon ni soo ko jëfee am ko wala lépp lu la tëgg woon ni soo ko am ko keroog ngay jàkkaar ko dee keroog moom kenn dara ko nekk ni yaa koy jawal sa bëgg su ma baax bari bari dana ci xam Imam Xasaali bi ñu ci Ihya Ulumuddin ci diggante bu doy waar ci ci ci ci diggante yooyu nit ki bu tollee ci bërëb boobu xam ne ñu def ci waa ci waajtaay mën naa yàgg ci moom ñun ay at nga xam ne boobu ngi ji dana taxaw dana ca bëriw bërëb boo mos a jaamu yàlla ko saa dana waaye bépp bërëb boo xam ne musulman bi mooy fa yàq yàq mu ngi dana fa def dañ ci fa lool ñu tudd ko lool di wéy dafay say xarit ki nga àndoon da yàlla tax ki nga àndoon di mooy ak li nga amoon ci am am di wéy dafay ba ca la nga gënoon a fonk ci sa alal sax mu ngi ko gis waaye tey da koy ñàkk mu dund si wéy sa daal sa am nga nag ñu ko daal ba jooy nee na ba jaaree bi gën a tudd bi gën a tudd sax dugg ak yow. suba nag bu lay gën a wax yow yàgg yàgg yàgg yàgg suba boo ko defee nga xam ne kontaan dëgg dëgg nekkoon nga fii xaf na dina am sax ku sàgg ne woon dégg nga lay sàgg ne woon nga loolu waaye tey dégg na yàgg loolu xam waaye nag mu doon jëlee nga topp say topp say activité yi àdduna ak say bëgg-bëgg sàgg ne ko loolu mën nga waxee lu jëm ci bis boobee lu ko lu ko ragal tey jii nag fakk sax naa fakk sax naa danañu wuññi danañu wuñ am ka ci wax daal sa mu lay yëpp li nga doon li nga daawoon gis lépp da gis kon gis lay di jëxëral di gis ci jëf yi di gis yi ba nga jëm bu mel nam war a bu fekkee nekkul ci ndigal yàlla ndigal bu tar day waar bu fekkee nekkul sa borom sa man fa ma sa ko yow tey moom sa gis-gis ak tey bii gis-gis bu yees la bu ko tëbbal daal su boobaa alkodomaa yi nañu nekk jaam bi am na ñaari téere jëf yi muy jëf mooy mu ko bisee ahsanaahu fi imaam bi ñu nga xam ne ko jëf ci loxo la ak jëf yi nga xam ne moom muy jëf te mu nekk si biir xol bi moo koy desee dëgg day mel ne xol day mel ne carte mémoire bi ñëw fi ne ni nga liggéey di ànd ak téléphone ni nga installé lépp dañ ci biir ay at ak lan nga installé installé fees am ñu ëpp mille si la mais dañ ko dégg si la wala ko wala ko manqué waaye tey li nga doon nafil taagu sax moo soxla tey nga génn loolu noonu la demee léegi li gis keroog nga gis jéego yi dañ ci bindoon ci say wax yi def ñu wax ñu def xam ñoom ñaar yooyu ñuy raqibul atid la ñoom ñaar ñooy sànni ci sawari ga àll képp ku wéet woon yàlla te ku dëw woon lool wala si yàlla si lay sax yàlla si sawar ma naa leen la xëy xam ni dafa woon ci dara lu wax ba ci ko ko kon noonu woon digal yàlla yi moo leen gën a dëng jubali waaye mu leen ñu bari woon ay sikki sàkk loo ko mos a fekk wax ne moom lu ci àll bi ku mel noonu nag mooy koo xam ne moom mu sànni yàlla kenn nag ñu mu sànni bi ne yàlla moom mu beneen bi ko def am na si jaan maanaam ila ànd ak xam ne ولا خرج من جبل ولا أدنى ولا أي بني غموه ما يعلم فالخيار في أسد يعني من الإنسان تسرع برضو أدنى أدنى من الإنسان تسرع timbul mudarbat berbeda wa huwa خلق منه أجل نكون الدنيا كله وخمسين تعلم ولا أيديهم لك أن ربنا ما ألقيته ولكن كان في ذلك بعيد منهم مضوا مقلي بيولو أي بيولو رب ويولو خمي loo ko mos a wax maanaam nanguwul dëkk dëgg bu ko taxaw mu ko ñu ko jëm ci lu baax ngir ak yoon ngir alal bu ndaw wala pouvoir bu war na ko tàmbali ci at maa am xëy waaye bu koy def nag umpale woon na tey jii ñu ne ko sax umpale woon na sax dafa ëllëg umpale woon na bis ci wala ngeen kaa fi dina la may dafa nekkoon ci réer bu sore sore sore bu koy di na ci suratu ba إننا وعدكم بالحق ووعدتكم فأخلفتكم وإبراهيم عليكم السلام إلا أن وعدكم فاستجبتم فلا تلوموني في نب لا تختصموا لدي ولد كنت وكل واحد وقد خلت إليكم ويلا jiitu woon na ci yéen ak tëkk xontaan ne ku jëf bi dina am lii tey nag maa ngi bëgg a xaw a la tey sama yoo xam ne maa ngi mën a lu wute xaw na ay wax la nekk ci li ma leen waxoon li si woon bi ñu xëy dinaa leen fay ngeen wute na ma leen sant def lu leen neex la ma leen déglu dama leen def ko liggéey ci rek ku laaj def lu baax taxaw taxawaay yi mel nii ci góorgóorlu xaw na la sa kër gi ñu ci waaye kon nan lankal yàlla topp si ko àdduna la seen kër gi moom xaw na mooy bu dul xool ndax yàlla nañu moo am na lépp ñëw bis la la lépp mën yàlla ñuy tooy ci ñeent ñoom yàlla nañ ko tënkee pour nga ci tënkee kon loolu téere bi ñu koy jàppale waaye sa saa wu su xujara bu fekkoon réew mi kii jiitu ñu jàngal ak maamoon. doyoon na ci sëkk. waaw doyoon na ci sëkk. saar woowu rek la waroon ci euh, constitution bi ñu gën a fekkoon wala da ngeen di mooy suñu wala dafay ñett wala ñeent yaay yàlla si daanaka ñu ci biir ndax taxawu bi day day baaxul sa ci topp kilifa bi. in jaakum faasiqun bi naba'in ci sunna li si ay ak assemblée nationale yaay si tëj ko sal ne la sal fekk boo gisee rek la sànni ñu wàllu sànni gis ñu ci biir koo gis rek jot jot ko lu ñaaw doo jot ci mukk lu baax loolu moo ci biir kon ñun ci indi ci xam-xam ak yar dañuy yar doomu aadama ba tey nga jàng seen nekk di gëm ak lu jullit bëgg ñu nga leen dégg ni jullit ñi naan fekk jullit yëpp man fukki jullit mën nañ fee mais léegi dañuy am jullit ak jullikat boobu jullit. jullit yi buñ la ñëwee rek dafa am lu war a nekk ci ñoom te am na ñoo xam ne nekkul ci ñoom. bi nga xam ne araab bi ñëw nañ ci yeneen yeneen seen seen xaar suñ koy defee xaaral bi araab amana araab bi al araab mooy lu ñu xetital ne ñu ngi digg seen digg ci kaw sàmm yaag yooyu sàmm yaag digg na seen ci des des ni kon aam na dund àdduna aam seen na de walakin aslam wax ci ay aslam ndax wala maa yadxul iman wala maa mooy duggagul wala maa yadxul iman duggagul ak ngëm yàlla fi xool bi seen xol ne kay mën ngaa jël lu yàgg te gëm hmm. boo fi jógee la lislaam dañ def da koy def pourtant si jàkk ji nga waaye ngëm ko moom dëgg léegi dem ngëm dëgg moom ak moom des boo si seen comme bi ay si ne am na yéen ñi gëm ñu wax ku gëm dëgg fi ne aji gëm ni te ñuy jàngal ko ci xarit ay yéen ci toll day mel ni yàlla toll ci safara bi ko wax day mel ni tey nga ñu safara yow day mel ni yéen yaa war a dugg sa coono di gis yàlla ñu ko yëngu ngëm bi tax waaye bu ñu dugg àjjana da ngay jàpp ne moom du yàq bu jënd yàq da ngay yàq tey jigéen ñi ci taw loolu boo ko misaal ci rasul sallallahu alayhi wa sallam waxtu takk sa kàbb nañ julli takk sa si wóor ko àjjana ci biir àjjana wóor fa àjjana mu daj génnaat ci biir julli gi lasana tan yo ko jëne tok sa bukan ga for ngëm ga ri ngëm ni kasfal ko bu ci bir ajal dugal ta teew ñi wi jité ñi ngi ñu dañ te ak di ñax gis nga fa pomp waxal bu ko dogal tay sédd ko waal ñun ñëpp bu ci lekkon kenn du xif di ko na sëñ tubay daal wax ni am na ko ñu ñu ci digël ni ni dina siratul mustaqim daal daal ci gëri wax ci. ñu ngi suñu Moussa Moussa Moussa Moussa Moussa Moussa Moussa Moussa استعد بالله واخر لا ngëm nga àgg ci yëg yëg na ne mel na ne siraat bi mu bëgg jéggi rek jéggi waaye ngëm mu ngëm mu ngëm mu tëral kon yàlla si naa amoon lii lépp تدي كوري بين أنفسكم عمر بن سعد ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل gëm naa rek mais ma dugg de xanaa ngi def ولا يكمل قول الإيمان ولا الأمل إلا بموافقة السنة gëm naa jëf naa du ma la xam naa ci sëñ bi dina julli farata yi farata yëpp julli yeeg sanga ñëpp da koy xam ba noppi tàggatu nag ci am ngëm ba am ngëm soo jullee nga yëpp boo nekkee ci barab da nga yëg di wéetu sa borom booy wax da nga yëg di wéetu am na koy bind say wax foo mën a nekk ci dëkk yi mën a nekk ndax ngëm bi moo nekkoon de seen kon saa yoo lu riis la lu am solo mën nañu ko jëlee ci xaalis mu ànd ak waaye sëñ bi ngay wéyal ko waaye ngëm moom sell nañ jàngale ak waajtaay génn ak li as nga xeetam sax la dëkk loolu la ñu si dëkk asalaamaaleykum وفتح خريب وبشر المؤمنين برمنا الله دين